salaamaaleykum mbokki internet yi nga xam ne ñooy safoo di sam Sénégal 7 ñoo ngi leen nuyu bu baax baax di leen ziar di am mbégte ak kontante ñëwaat ak yéen seen émission sport sur set tey nag euh, ñoo ngi ñëw fi nga xam ne moo di Pikine ñëw seet si benn ndaanaan boo xamante ni Sénégal yëpp euh, ñoo ngi koy bàyyi xel mooy tudd Pape Demba Ndior nekk attaquant di évoluer fële nga xam ne moo di Turquie Super League turque équipe bu ñu naan Umran Pape Demba nekk un jeune très très ak ay qualité technique xam nga tactique mu nekk benn jour bu athlétique boo xamante ni ñëpp a ngi koy bàyyi xel mu nekk un jeune joueur très prometteur dem ba ñoo ngi lay nuyu bu baax di la ziar di la dalal ci site bu mag bi di Sénégal 7. waaw Ibrahima ñoo ngi lay fay waaw di la delloo sa wàccuwaay di sant ñëpp di gërëm ñëpp Sénégal bi yëpp waaw ñoo lay béggee bu baax a baax a baax. Pape Demba actuellement yaa ngi vacances naka ngay dundee sa vacances fi nga xam ne moom Sénégal. waaw vacances yi ñoo ngi koy dund bànneex rek waaw xam nga ñëw gis famille bi gis xarit yi am di jàmm yi ak ñëpp waaw ñoo ngi ciy kontaan bu baax a baax. Mhm. actuellement euh, vacances yi est-ce que yaa ngi entraîné fii di noyal di lekk ak naan tëdd jóg. non noyaluñu sax waaw ñooy suñuy ñu jëlal ñu course individuelle. AB coaching Abdou maa ngi koy béggee bu baax waaw moom moom moom ngi jàpp si liggéey bu baax waaw. ñaata séance def par jour. ba may doog a ñëw nag deux séances laa doon def mais comme instant yi affaire yi ñibbi bi jege na waa léegi instant benn séance la ñuy def waaw. deux séances le def séance le ngoon nga def séance si lan ngay focaliser wu say séance en général. waaw nii séance moom dóor si bal bi rek travail avec ballon xam nga. travail avec ballon devant les buts motricité. voilà devant les buts des fois ñu dem salle Batora xam nga liggéey foofu tamit waaw si loolu lañ focaliser wu instant nii comme ñibbi bi jege na quoi. Mhm. yaa ngi ñoo ngi def lépp non Abdou moom moo ngi may dajji wax dëgg yàlla moom laa tuddee sax Rocirou. ru <laughs> moom laa tuddee Rocirou de <laughs> lu leer laa lay wax. moo may bëgg rey billaahi Hmm. Ah, boo jógee entraînement est-ce que yaa ngi bàyyi xel bu baax ci sa nutrition sa alimentation. si waaw maa ngi si bàyyi xel bu baax ak récupération bi xam nga xam nga football moom entraînement bi loolu la laaj soo demee entraînement da ngay ñëw dallu waaw lekk ba suur tëdd nelaw waaw. mais entraînement yan lan ngay faral di di jël. waaw ñun spaghetti lañuy faral di lekk macaroni waaw xam nga loolu moom mooy alimentation jour quoi loolu lañuy ëpp lu ñuy lekk. gis yaa ngi jël bu baax ay ay par exemple ay ay ay vitamines ak ay fruits yi nga xam ni di nga dina tax li nga li nga li nga li nga énergie bi nga xamoon dissipé nga di nga ko mën a récupérer wala sii si ñoo ngi koy jël bu baax xam nga rek boo jaaree haut niveau moom am na yoo xamante ni day nekk si yow day dem ba nekk si yow parce que gis nga produit yi nu ñuy dundee ak lépp fo boo ko jël rek xam nga da ngay gaañu quoi. la différence entre Sénégal ak ak Turquie. problème cadre de vie euh, côté côté environnement. waaw am na différence am na différence bu mag a mag a mag xam nga fee boo fa nekkee rek benn sa xel dafay dal xam nga yaa ngi nekk si li nga war a nekk chaque jour ngay gis pro yi xam nga da ngay sa xel day dal quoi par rapport ak Sénégal xam nga amu football Sénégal moom doo fa xaw a doy te war nañ ko gën a mun a améliorer quoi waaw championnat local beeg yëpp. lan nga jàpp ni moo manqué. fii nii war nañ mën a teg joueurs yi si ay conditions yu baax di leen fay salaire yu baax xam nga comme lu may wax chaque jour rek fii da fi mës a gis pro buy dawal oto mosoo ko fi gis te loolu war na waaw loolu war na a nekk si suñu championnat ay Tanzanie ñoo ngi dem di fay joueurs ay 5 millions 10 millions pa Ousmane Sakho kañ la dem mooy dawal oto pourquoi pa suñu championnat war na mën a dox bu baax a baax te dëkk yooyu bu leen jàppee kaan da leen di tas war na mën a nekk waaw mën nga ñëwal defal sa bilan de la saison avec Umrani Sport. waaw Umrani ren def nañ saison bu baax si U19 yi waaw dugal naa fa ay bii lépp. nga wax de. waaw ay bii. bëri na plus de ay 10 bii kay bëri na ak ay des décisives yu bëri. Mhm. nga sa say prestations. Mhm, waaw si bu baax parce que ñun xam nañ lu nekk si ñun quoi. te loolu si kanam tuuti dañ ko bëgg a woon sénégalais ba ñëpp gis ko teg si seen bët loolu lañ bëgg. Mhm. mën nga ñu euh, retracer sa parcours. waaw sama parcours man jaar naa si centre sama coach formateur mooy Layka ACLK maa ngi koy gërëm bu baax waaw lépp lu nekk si man rek moom moo ko def si man xam nga jaar naa si neewtaani jaar naa Jokko xam nga jaar naa Cosaan euh, jaar naa Gunaas bu Géejawaay. jaar naa foofu yëpp waaw si centre yi jaar naa euh, Africa Foot jaar naa Bsport di profité di nuyu suñu président Bsport Abdourahmane Abdourahmane Dieng waaw moom moom jàpp na samay affaire bu baax a baax a baax. Mhm. kon yow Bsport nga jógee daal dem Turquie. waaw Bsport laa jóge dem Turquie direct. direct waaw. Euh, contact yi entre Bsport ak Turquie nan la demee. waaw foofu moom sama benn agent moom moo ma liggantil lépp. la gisee. Euh, moom mooy woon foofu ku si mel ni sama grand bu ñu naan Umar Sow moom sama ndijaay la quoi moo nekk Turquie gisante ak agent bi woon ko samay vidéo et tout euh, agent bi barde xam nga yónnee ma invitation bi ak billet lépp si la rejoindre Turquie quoi ñëw foofu. ba nga rejoindre Turquie ban club nga newoon. njëkk naa jaar Gaziantep def fa test deux jours baaxul ma dem Riza waaw. dafa test deux jours tamit jàllu xam nga Turquie moom seen football da ngay ree ba tas ñoom duñ may temps jour quoi. deux jours dafa ndaw. dafa ndaw xam nga munoo si xam jour ñoom loolooy seen problème après si laa toogee nag di entraîner toog 6 mois awma club. nga toog 6 mois amoo club moment yooyu noonu lan nga doon yëg. non metti metti woon na trop sax waaw ñuy dem entraînement ñëw xam nga gëm ko nag. moment yooyu mooy moo nekk moment yu dur 6 mois sans club. nga jóge fii dem foofu amoon espoir loolu nga toog 6 nga def deux tests yoo xamante ni doxul 6 mois amoo club moment yooyu noonu naka nga doon dundee. waaw moment yooyu dafa metti woon mais dama fooroon mentalement mais dama ne man lii nii nit du ma tere teg ci football lii du dara quoi xam nga ku si mel ni sama Omar Sow Omar Sow sama ndijaay ñoom ñoo nekkandoo woon Turki comprendre nga di ma dëfal di ma waaw di yokk si man loo xamante ni aw ma ko woon sax si football. naa ma del def lii del def laa def si man gëm-gëm boo xamante ni même ba nii nii nii fu ma dem moom laay doxee waaw moom moo si jàpp quoi may ma courage nii laa toog rek benn agent na ma suba ñëwal umraani ma ñëw g foofu yëngal si sens yi lañ ma dem loger si kii logement pour yi ma dem foofu noonu laa duggee umraani sport. Mhm. sa sa intégration à umraani sport nan la demee comment ça s'est passé. waaw metti woon na metti na mettiwul. parce que instant noonu commencé naa xam football turki nu muy laaj xam nga gars yi nan la ñuy jouer dem seen match yi seetaan leen xam nga xam naa haut niveau bi lan lay laaj quoi pare si laa xëy di dem salle di entraîne di teg sama bopp lu metti waaw moo tax après adaptation bi dafa yomb si man. Hmm. mais amoon ay problème ak langue bi parce que nga jógee Sénégal turc bi turc lii la ñuy làkk anglais la ñuy làkk ak turc. waaw amoon nañ problème. mais xam nga rek looy gën a dem ak lu may nekkee si naar yi noonu da ngay gën a miin quoi di sàcc ay moo di wax xam nga des fois ñu wax suñu soxla des fois mu metti nag. mais dégg dégg nga làkk bu baax. non des na des na des na waaw des na. du la causer problème boo joué ak gars si non léegi moom du ma poser problème parce que xam naa ay moo ngi ñëw defal ni kii fii lay jaar xam nga yooyu capté naa ko quoi. yu may soxla si biir terrain xam naa ko. Mm-hmm. Mm-hmm. naka naka nga Sport club bi ni muy doxee ak installation yi waaw foofu moom neex na trop wax dëgg yàlla boo fa nekkee da ngay dund poro bi waaw da mel ni poro nga xam nga neex na trop wax dëgg yàlla. Mhm. Euh, ñu fàttali ni que yow yaa ngi nekk junior doon jouer ci équipe U19 yi yu nga xam ni mooy Branch Sport euh, yëngal nga wax nga ko see biir wax foofu yëngal nga fa dugal nga ay buts pass nga des bi instant yi. du ñàkk ay club yi nga xam ne dañ lay courtiser pour mën la jël saison prochaine. Hmm. waaw club yu ñu soxla bëri na bëri na trop mais foofu moom dañ ciy def code quoi xam nga mooy loolu mais ci kanam tuuti. mais lan nga ciy def code. non xam nga rek. <laughs> mais exclusivité bi ci Sénégal lay jaaree. Hmm, waaw wax nga dëgg mais nañ si def code rek xam nga waaw xam nga Olof Ndiaye def na booy booy ligganti benn affaire dee koy def ci suuf rek bu sottee mu explosé ñëpp yëg waaw. ñu fàttali ni tamit euh, junior nga est-ce que yaa ngi say ambition yaa ngi bàyyi xel équipe nationale u gis nga jalooro bi ñu def si Coupe d'Afrique bi mais malheureusement danañ éliminer si mondial U20. si waaw maa ngi bàyyi xel équipe nationale bu baax te gëm naa ne du yàgg dara dara dara dinaa fa teew incha allah gëm-gëm boobu am naa ko te moo ngi si man waaw te talent bi tamit moo ngi si man na ma gars yi bàyyi xel rek waaw loolu laa leen di wax. mën nga am euh, contact avec le sélectionneur ki nga xam ne mooy Malick Daaf. waaw Malick Daaf ba may nekk bi sport mosoon na fa ñëw seetaan ma xam nga mu gis sama taay ak lu may football mu ne mu wax ak président bi sport Abdourahmane Dieng ba mu dee mais après par la suite si la voyagé si mois boobu noonu. nga nekk attaquant euh, attaque euh, ban ban poste nga gën a nga nekk à sur le front de l'attaque. waaw man excentré ailier waaw. ñaar yëpp laay joué waaw gos mooy sama point fort gos moom boo ma fa nekkee damay nekk à l'aise mhm. mais dans l'axe si pointe bi attaque attaquant de pointe mën nga joué si damay joué point damay joué numéro 10 tamit waaw kon yow tu es polyvalent da ngay joué numéro 10 excentré gauche droite joué de pointe lan mooy sa point fort sama point fort dribble dribble waaw loolu moom bañ na ko ba temps yu may génne yotaan sax ku ma jàkkaarloo ni un contre un dañ naan tey nga dee. waaw dama lay dindi par force moom. loolu moom don la quoi. nekkul loo xamante ni dama ko judduwaale yàlla moo ma ko defal. Hmm. Hmm. lan mooy sa point faible. point faible sama point faible. ah lan nga jàpp ni yow war nga ko améliorer en tant qu'un attaquant pour gars gën la mën a dégg gars yi mën na gën la bàyyi xel. Hmm. Ah, gars yi dañ naan des fois du may daw quoi dama taayal dama xaw a taayal loolu la instant yi ñoo ngi vingt et unième siècle attaquant excentré dafa war a explosif dafa war a athlétique kon excentré moom warul tayal moom. waaw ah, du yoon non man damay daw sax mais xam nga rek yow liy nekk si yow ak lu gars di gis des fois du doon benn quoi. ñoo voilà mais loolu liggéey naa si ba instant nii jamono jii nii alhamdulilah quoi. sa point gis ko yaa ngi koy amélioré instant yaa ngi daw yaa ngi explosif nga quoi. si maa ngi ciy liggéey bu baax a baax waaw léegi moom bu ma duggee teere moom su ma la rombee da ngay yaakaar ni benn avion moo la romb waaw liggéey nañ si bu baax a baax sant yàlla koi objectif euh, sur le plan individuel. waaw samay objectif mooy signer pro loolu laay ñaan teral famille bi xarit yi xam nga am di jàmm yi ñëpp ñu dégg mu sori waaw maam dem équipe nationale A pourquoi pas parce que samay morom ñoo koy def te. waaw no u loolu moom biento incha allah mooy lu ma la wax rek na ma gars yi xaar waaw te xam naa ni foo bi dàq ñu ma ko ëpp ñu fit bi te ëpp ñu ma gëm-gën bi waaw. football Sénégal ak mouvance bi ñu toll nii. waaw football Sénégal neex na wax dëgg yàlla Sénégal bëri na ay talent talent kase la fii moom ku yàlla dimbali moo fi nekk rek waaw mais Sénégal moom bëri na talent trop trop trop waaw. ngay jox jeunes joueurs waaw jeunes joueurs yi maa leen jox conseil boo xamante ni nañuy muñ xam nga bu ñu demee si dëkk tey jii affaire yi metti nañ toog muñ ko fa ñu muñ xam nga nga xam ne après da ngay bànneexu après di nga am loo mën a expliquer quoi man loolu laa leen di wax football dafa ànd ak muñ di déglu xam nga di déglu buñ lay wax nga jël lu baax jent lu bon nga sànni loolu laa leen di wax quoi. lan mooy sa mot de la fin lan ngay tàggatoo ak mbokk internet waaw maa nuyu Sénégal di leen sant di leen gërëm waaw di béggee ñu si jàpp yëpp ku ci mel ni Issa Ciss Dias waaw kooku moom ba fi kenn nekkulee moom moo fi nekk chaque jour loolu laay wax kooku moom daa dem ba ne moom sax sama papa la papa laa ko jàppee waaw ku si mel ni Cheikh Sow coiffeur moo ngi Milan sama ndijaay la kooku tamit jàpp na si affaire yi bu baax kooku xaw ma sax lu ma koy fayee ku si mel ni Umar saw moo ngi Turki ku si mel ni Mocaam waaw Séeri Adja kooku tamit jàpp na si affaire yi bu baax a baax a baax ku si mel ni Diego ah ku si mel ni Prési Biesport ku si mel ni Aliou Kaza Ababacar Ndiaye ah waaw Aliou Kaza ñoo ñëpp xam nga si staff bi lañ bokk ñoo may dooleel xam nga ku si mel ni Minti Fall Marème Fall ah ay Baba waa maa ngi bëggee waa ANCAR bu baax waa Oxlu bi waaw waa Naturel Gang xam nga ñëpp maa leen di bëggee waaw. waaw waa OMC non dama njaboot <laughs> man ñu ma yor dafa bëri quoi xam nga rek dama nekk jeune jox ñëpp cër xam nga nekk ci koñ bi lu mag moom ma jox ko lu xale moom ma jox ko loolu moo waral lii yëpp quoi waaw di bëggee ñëpp ñëpp ñëpp waaw di bëggee waa cosaan tamit fu ma juddoo yaroo fi màggee fi waaw ñëpp Pikine daal ñëpp maa leen di sant di leen gërëm. Mhm. di la ñaanal carrière prochaine. amiin waay amiin tamit di la ñaanal sa liggéey bi xam nga. nga dem ba am sa télé bopp ak jéemi xam nga sama sama booy bu baax la quoi <laughs> ñooy toog chaque jour sama waay la waaw. maa ngi gërëm sama waa famille Sowen ak famille Ndiorène sama ku si mel ni sama bàjjan jaara sama bàjjan Mariama sama maam waaw mère kase maa ngi leen di nuyu sama bàjjan Mbène xam nga. su ma ñëwee kër euh, famille Sow maa ngi nuyu sama bàjjan Yaafaatu sama yaay surtout sama yaay waaw ba ma ñëwee ba léegi moom mooy jàpp si affaire yi xam nga. di mën a defal nii defal naa xam nga famille Soyen bi famille Ndiorène sama rakk Mari Ndior Ibu Ibu Ndior xam nga Laay Loo Aliou Sow xam nga ku si mel ni Cheikh seen moo ngi Italie ñoom tamit ñoom ñëpp maa leen gërëm waaw jàpp nañ si affaire yi bu baax a baax a baax surtout Cheikh seen waaw moom yàgg na ma conseiller quoi. maa ngi gërëm Penda saw waaw sama baajan la ay Aïssatou saw sama bàjjan la maa leen di gërëm bu baax sama rakk Soumaye ñoom Laay Loo xam nga. waaw famille naa leen bu baax.